yàlla nangu nga kos de. ah mais man ku ma xam xam ne ci lii la ma xamee. man ku ma xam rek xam ne si lii la ma xamee. Aline xamee ko Gaston production. Mhm. tey wàllum organisation fu ngeen ci toll. waa mais xam nga nag Gaston production moom lépp lu muy def gis nga bu comme jour bi combat bi taxawee ñoom jour boobu la ñuy commencé def seen organisation ci lépp jour ba da ngay ñëw rek dugg bëre bon yàgg nañ ko def quoi léegi dootul kii quoi dootul am benn lu bees wala lan lu ci am. parce que tàmm nañ ko tàmm nañ fessi fessi tàmm nañ organiser tam nañ def daal li nga xam ne bëgg nañ def daal toujours plus parce que Gaston noonu la bindoo moom tey bu nekkee tey pa A suba dey bëgg nga doubler A ba <laughs> moom moom noonu la mel quoi toujours rek ay escalier la yéeg rek waaw. comme Aline nga waaw waaw loolu moom yàlla moo ko def su ma demee bañ naan ma Alioune Gueye Gaston production ça veut dire que yàgg naa fa bon Gaston production actuellement ñi fa nekk man maay doyen bi parce que ba ma fa nekkee léegi ça fait maintenant vingt cinq ans vingt six ans xam nga loolu loolu du <laughs> ah, noonu la xam nga nekk man dama nekk nit ki nga xam ne ma fidèle ci doomu aadama dama fidèle en amitié fidèle ci lépp loolu moom moo tax mooy ànd ak nit loolu noonu la ñuy demee daal. Mhm. Euh, non si affiche yu bare la en fait am na lu mat quatre affiches yi nga xam ne affiche de rêve la yi nga xam ne ñun bëgg nañ ko. mais nag euh, Siteu Siteu ak Ama Baldé boobu la ñu gën bëgg moom. Siteu Ama Baldé. waaw boobu moom lañ bëgg jëkk ak tëgg en premier. ba pare soog a tëgg yeneen yi xam nga yeneen yi bu ngeen xoolee adversaire yëpp dañu nekk si sous contrat wala lenn Ama Baldé Siteu euh, am nañu yaakaar que ni xam nga Ama dafa waroon bëre ak Modou Lo ci combat boobu ragal nañ mu nekk ren. waaw ah, man mën na nekk ren c'est fort possible mu nekk ren. te bu nekkee ren loolu moom. ah mais loolu loolu du ci dara mbër mën na jël carte d'avance. loolu du dara loolu du dara ah li afi ah, kii mbër la loolu chance su la mbër nga ñëw man sama mbër boo ñëwee manager la boo ñëwee sama mbër ba mu joxe cinq avance ma jël. non avantage la avantage su mbër bi la mbër bi dafa war boo xoolee mbër yu bari tey li leen xaw a tardel loolu la dañuy toog war gis avance doo ko jël doo ko jël doo ko jël après nga toog quatre ans cinq ans bëri mais loolu boo ko dindee say at li lay dee sa carrière du bëri waaw. revanche Bombardier Sa Thiès est-ce que dëgg non non non non non xam nga nag gars yi moom lu ñu loolu si bëgg-bëggu amateur yi la te yàlla mën na def mu am parce que Bombardier nag avant muy tëj carrière am moom foog foog rëkkam boobu moom foog mu rëkk ko Sa Thiès moom. <laughs> yàlla na wax ne moom faaw mu bëreeg Sa Thiès. Sa Thiès da ko lakkal nag xam nga Sa Thiès dafa lakkal Bombardier <laughs> loolu moom moo tax comme comme moom objectif am mooy bëreeg quatre génération bëreeg magam. bëreeg moromam bëreeg rakam bëreeg ak ak jarbaatam donc Sa Thiès jarbaatam la il faut mu rëkk Sa Thiès <laughs> loolu moo tax quoi. Euh, xam nga loolu ñu xamul sport rek ñoo koy wax sport ba baabo yi yéen a ngi fàttaliku baabo yi bu mu bëri nees dafa dugg daal def benn 100 mètres am déchirure musculaire loolu day am te li koy def mbër en général mooy ndox mi ñuy sotteekoo la da ngay daw ba sa yaram tàng nga sotteekoo ndox loolu dañ koy tere sportif yëpp mën nga gaañoo nu ne léegi sa bu seddee xam nga yow yaa ngi nii boo entraîné ba ñëw sax bëgg sangu dañ naan déedéet xaaral ba ci kanam ba sa yaram sedd nga sow mais mbëri duñ def loolu dañuy dem entraîner ba taw ba tàng sotte ko ndox bu ko defee toujours ay blessures yu sew sewaat moo lay mooy mooy keet mais Bombardier mook Tapha Tine arbitre bi ko jógee woon ñooñu bu xoolee mais mais mais da ngay dégg sax riir bi riiru fracture bi filu lam si guddi gis nga ba mu gaañoo ba pare noonu hôpital la jubal directement gis nga am na benn émission tele bu doon daw euh, je pense que Oeil la man maa leen envoyé image image yi image yu ñuy soog a kii e hôpital la dañ ko cliché dafa génn rek ma envoyé la parce que boobu dama toog sama kër dégg télévision bi nit ñi ñu ubbi ubbi antenne bi mais nit ñi wax yi nga xam ne yow da lay jaaxal ma ne xaaral nag parce que ñii su ma leen bàyyi ñuy naajow ci erreur grawul c'est vrai que bulletin wu nit waroo ko publier mais fallait que def ko pour askan bi xam ne effectivement blessure bi am na Bombardier veille veille combat bi wane nañ ko ay am na ay journalistes yi demoon këram di ko jaral lool moo tax hôpital ba jooy rek la fa nekk woon waaw. effectivement eh, xam nga bu ngeen seetloo komba durant quatre hmm. vingt loolu sax consigne la dañ ko ko bëreloo Bombardier boo xoolee. Euh, combat am damay génne premier souffle bi bu ngeen xoolee combat mi yëpp image damay ñëw place presque place entraîneur laay taxaw damay ñëw génneel ko premier souffle bu mu génn pare xam naa ban façon nit la ba yaram bi tàng ba pare du ma nangu nag après ko ko sotti dox. mais boobu ak sama organisation ci li ma nekkoon ak yooyu mënu ma ko woon joge yenn joge yi te boo jogee sax ñu ne la non voilà promoteur ba nangam nangam xam nga sénégalais ñun xamuñu sport ñun bëgg nañ <laughs> yu bëre mais moom yàgg na yàgg na ci sport xam na luy gaañaate xam na yàgg te day def MMA mi nga am ay combat MMA yi nga xam ne da ko war a kii moo tax automatiquement bu mu gaañoo ci guddi gi la la lendemain à zéro heure na Paris si am parce que ba ñu envoyé docteur bi cliché yi da ko xool rek mu ne na ñëw daar daar parce que comme am na combat MMA bu koy xaar il faut mu ñëw daar daar ñu faj ko pour mu teel a wér moom moo tax ba nii may wax yow mi ngi foofu di faju Bombardier koo ko xam noo xaaral gis nga Bombardier koo ko xam xam ne mbër la mi nga xam ne du Bombardier mosul tricher si carrière am c'est vrai que am na lu jaaxal nit ñi nag li nga wax dëgg la euh, mu reculer mais stratégie la woon même Tafa ñëwul loon pour xeex Tafa ko xam làmb dëgg dëgg dëgg day xam ne kii ñoom ñaar ñëpp calcul loon ku si nekk da nga doon a nax sa morom far far yàlla indi blessure bi loolu rek la mais du leneen mais ñaari mbër yu ñemente lañu. non xam nga boo blessé rek. après il faut ñu toog xool sa blessure nan lay demee ak yooyu ba pare léegi il faut kay docteur yi xool blessure bi ndax mën na def combat wala déet su mënul kii dañ koy pousse rek dañuy pousse combat bi rek loolu la quoi. jërëjëf merci.